Sir. mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi wute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñu diwaan ah, juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh ca Ndar bisimila ci xibaar. Adama Ndione. bokk na ci li ci gën a fës coow luy dox diggante dawalkatu moto taxi foofa ca Tambacounda ak way takk der yi jàppante yu tar am na ca daal di sax amee ay gaañu gaañu yu ñenn ñi daal nañ leen yóbbu ci yoon dinañ ci daal di dikki ci ndorteelu xibaar rek Boubacar Tamba ah, chauffeur yu Sénégal. daal boobu jamono ñuy sàkku nag transport interurbain bi ñu daal di koy nag euh, ubbi situation bi daanaka métti na mën a ko mënatuñu ko nag euh, daal di dékku loolu union routier yu Sénégal daal di nag xamle dinañ ko daal di teewlu ci biir xibaar yi euh, dinañu dëkk itam ci lu aju ci wàllu transport bi ba tey ak li aju ci ñi nga xam ne nag ñoo ko war jëriñoo ci wàllu korite gi faw ñu daal di nekk ñoo xam ne nag dañuy daal di yor oto ab daamar ngir ñu mën koo daal di nag amal ñi ci bari nag kaw gëstu geeg aji faatu bari ci biir xibaar yi lay doon situation bés bi itam dinañ ci daal di jukki ak yokkute bi ci daal di nag am ñaari nit ñi daal di nag faatu lim gi kon dem na ba ci fanweeri nit ñi daal di ñàkk seeni nag bakken ñii daal di nag amee feebar bi bees mooy juróom-ñaar fukk ak ñett yi nga xam ne seen test daal daal dinay rek positif juróom yi ay transmission communautaire la dinañ ci daal di dikk dëkk yi nga xam ne ñoom la daf fii daal di euh, waliyaan si ci kanam lay doon yëpp ci wax sa xalaat dina ci daal di bokk ngeen mën cee rek àddu ci kanam tuuti dinañu jukki itam ci li aju ci ay ñiy faral nag di faatu ak at yi ñuy daal di nag amee gis nañ ne nag góor ñi ñoo ëpp ni ñu cay faatu ci jigéen yi njàngat la bu daal di nag dikk ci mbir moomee dinañ ci daal di nag àddu dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy dikk nag ci ubbi antenne bi wax sa xalaat xibaar yi daal di buur Alioune Badara Socé mën na ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness gis lay doon. Adama Ndione eh, ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak dawalkatu moto taxi yi foofe ca Tambacounda ñoom ak woy takk der yi ñoo doon laale gannaaw ba ñu wàccee ca mbedd ya ñoom nag la ñu daal di nag wax mooy xiif tàmmale na leen tongal ba tax na eh, seen kër yi daal métti na fa faa ñu daal di génn nag dem liggéeyi loolu waral jàppante daal di dox seen digg koy takk der yi jàppante yu métti ba am ña ci amee ay gaañu gaañu ñeneen yi sax daal nañ teg nañ leen loxo Boubacar Tamba. donte mbas mi di coronavirus nee na tekk tey fii ci Tambacounda teewul dëkk bi tàng jiir ndax jàppante ya borom moto taxi Jakarta yeeg yi doon amal. Amady Ba mooy njiitu union des moto taxi bu tey lu waral suñu risque li mooy ñoo sonn ñoo tay léegi trois mois léegi. ñu ñu fexe ba liggéey ministre ministre bi mu génnee décret xam na ne ñëpp toog ñun ñoo toog ministre bi génne fond cinq milliards jox ñëpp bàyyi moto mu taxi yi kooku maan encore bëgg dem bu ministre de l'intérieur génn mooy léegi zone noire yi ak njanjaay ak pétaay mun nañ jël le même nombre de places mais kenn tuddul moto Jakarta puisque ñun ñun ay baadoolo lañ amuñu dara moto yi lañ lañ lañ yaakaar moo tax te ñu ñu fa fa fa fa génn liggéey pour am lu ñuy yóbbu suñu kër yi parce que xiif nii nii du xiif mais boo déggee xiif bu gën a métti mooy moo ñu dal nii nii. mu ne la ndaw yi taal ay pneu teg ay baaxaas loolee gàllankoor loolu dem ak dikk bi mu am nag ña ci jëlee ay gaañu gaañu. ak ñañ ci teg loxo Boubacar Tamadoun Dieye Diocko fii ci Tambacounda. xaju si dafa boobu jamono ba tey ci wàllu transport bi euh, chauffeur yu Sénégal di sàkku ñu daal di nag dooraat transport urbain bi diggante diwaan ak diwaan ñoom nag ne ñu euh, fa ñu daal di koy nag ubbi gare routière yi ndax nag situation bi moo daal di nag métti ba euh, nekkatul loo xam ne daal mën nañ ko dékku secretaire général bi union routier yu Sénégal di ci daal di nag àddu moom góor xuma nee na matuwaay ca war mën nañ ko jël góor xuma ñu déglu ko ak El Hadj lu noble la lu war a mën a nekk la maa ngi koy yuuxu sama morom a ngi koy yuuxu parce que euh, Covid 19 dafa impacté ñëpp mais rawatina secteur transport rawatina nag catégorie interurbain bi parce que il faut que Sénégal yi xam ne Dakar mooy gérer le transport urbain mais treize régions yi ci def transport interurbain jóge ci région bi dem ci beneen région loolu la ñuy wax la licence rouge licence rouge boobu moom moo yore transport interurbain la licence jaune moom mooy transport Dakar mais treize régions nga bloqué ko bàyyi benn région buy dox te ñëpp bokk ci Sénégal dafa métti moo tax demande bi wax man koy wax keneen ni wax ñun li ñu bëgg mooy nañu bàyyi oto yi liggéey mooy demande ku mën di doon parce que catastrophe am na ci ñun coono am na ci ñun vraiment métti na te xamut lu ñu def te boobu kër nañu looloo waral benn bëgg benn rek la ne président corrigé lii ndax li tax ñu bëgg mu corrigé ko mooy gis nañu ne moo wax na ne teewlu bi ay la yoon xamaguñ kañ la jeexoon il faut que ñun ñëpp ñu xam ne dañoo war dëkk ak moom comme dañoo war dëkk ak moom nag di xeex ak moom nañ bàyyi tamit transport bi dëkk ak moom i xeex ak moom mais buñ bàyyi ñëpp di liggéey liggéey ñu dina ñu dina am beneen feebar bokkul ak euh, covid 19 bi wax na ne ah jàkka yi léegi lii di culture wax du jàkk kese jumaa yi jàkka ubbi nañ ko marché yi ubbi nañ ko ah bëgg nañ aussi enseignants yi jógee fa kenn ku nekk dellu sa classe ba nga doon jàngale classe de jëme yi bëgg nañ aussi baykat yi dinañ seeni tool ah, bëgg nañu lu may ubbeeku mais yooyu yëpp transport koy def te ñun vraiment ku wax ak xam ne moom ci président sax war na xam ne ñun ñu ci musiba bu rëy rëy rëy rëy ndax nit ki bu ko da nga doon liggéey ba weeru dee boo mutu sax sa dépense mat te ñu teel ñetti weer yoo xam ne yoroo dara te nga yor dara kooku catastrophe la te ñu tamit ay citoyen Sénégal lañu comme nee na dañuy dund feebar bi lañu dund feebar bi Euh, naka ngeen ko jàngatee itam ba tey ci wax sa xalaat lay bokk ñàkk dindi nag te rek euh, transport interurbain boobu ñu ci bari ci ñu waroon rek dem ngir euh, korite ji dina métti ci ñoom ndax duñu am autorisation ngir daal di dem fête bi ci seeni nag njaboot la ko waral mooy condition bi ñu teg mooy ku ci ne war nga rek mën a yore ab oto ngir nga mën rek génn dem sa dëkk boo bëgg a dem ñu ci bari nag ci askan wi yëf yi nag ñu tàmbali ko méttitlu ndax boobu mooy ñoom duñ ca bokk gëstu geek aji Fatou Bari. képp ku bëgg a dem feete ji korité bi ak say njaboot di nga mën a dem waaye faw nga am lii di autorisation boo xam ne ministère de l' intérieur ñoo koy joxee boobu la autorisation nag jot ci daanaka xare la. man dugg naa ci plateforme bi ngir xool ndaxam dinaa mën a am autorisation waaye dañ maa ne faaw nga am oto te man aw ma ko. war ko woon quoi ndax ñi am oto buñ ñu mënee dem rek ñi amul oto war nañoo mën a jël oto dem xanaa kay li ñuy wax moom mooy kenn ku nekk ni ngay demee ñu jéem xool oto bu ne ñaata personne moom moo ci mën a dugg. li ci gën a yéeme nag moo di balaa nga am boobu boobule autorisation faw nga doon koo xam ne danga nga yore oto te fii nag ñu toll nekkul ne mënoo am lii di oto. ñi am oto ñi am autorisation d' accord quoi parce que a dem. pour les conditions là a parce que le véhicule le matricule et les cartes grises li gën a ci mbir mi nag moo di korité bi ay fan dong ci des te ñu bëri ñoo xam ne dañoo façon yéene dellu ci seen i njaboot seen yaakaar mu ngi bëgg a tas. c'est ñu bëri lool ay doomi Sénégal yoo xamante ne dañoo cangoon fii ci Ndakaaru wala yeneen i gox yu nekk ci réew mi gannaaw ba nga xamante ne dañoo teg li di état d'urgence te tere dem ak dikk bi gox ak gox looloo waral ba sax ñu ci bëri fi mu toll nii ak korité bii di yegg si li ñu mujjee def rek moo di daal di soppi seeni plan ngir mën a korité fu leen fekk. aji fàddu ñu daal di desandi ak situation bésuk tey ji ñaari nit ñu daal di nag faatu ci Covid 19 bi ab waaye bu amee juróom-ñaar fukki at ak euh, ñett de fekk baax fi ci Grand Yoff moom nag daal na yeeg faatu ca hôpital Nabil Choucair keneen ki nag juróom-ñetti fukk ak juróom-benn la am euh, ci ay euh, at moom nag faatu na ci ab hôpital boo xam ne wàllu privé bi la fukki fan ak juróom-benn la ba léegi looloo tax nag bilan bi ba ñu xayma yëpp mu war a toll ci fanweer. tey jii nag juróom fukk ak ñett eh, ci ay cas yu bees la ñu daal di nag nemmeeku juróom yi nee ñu dal eh, mooy transmission communautaire ci Ndakaaru ak eh, Touba am na itam juróom-ñeenti yoo xam ne jamono ji moom la ñu duppee yu grave ñu ngi koy daal di nag saytu bu ñu sukkandikoo ci directrice bi ñu dénk wàllu santé di docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye ñu déglu ko ci micro FM. juróom-ñeenti téeméer ak fanweer test yi nga xam ne réalisé nañ ko juróom-ñaar fukk ak ñett dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-benn fukk ak juróom-ñett nekk nañu contact mooy yi nga xamante ne ñoom la suñu bërëb liggéeyukaay yi di topp te di leen saytu juróom ñoom moom la wax cas communautaire nekk ci bërëb yi Grand Médine ci dakaar fii am na benn Dakar Faidherbe am na benn Yoff fii tamit ci dakaar am na benn fële ca Touba am na ñaar juróom fukk ak juróom patient mooy ñi nga xamante ne tëdd nañu ci hôpital saytu nañ leen seen wér-gu-yaram amatul benn doomu jàngoro wër nañu juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi si suñu bërëb yi ñuy wax mooy service réanimation ñi nga xam ne ñoo ci des tëdd ca lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii bi mbas mi dalee dugg Sénégal ba léegi ñu ngi tollu si ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaari cas yi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu junni ak téeméer ak fanweer ak ñett wër nañu fanweer génn nañ ci àddina ci lalu hôpital yi tëdd tey jii ñu leen di faj ci ay doomu aadama ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett Sénégal nag suñu dëkk mu ngi am nakar ak tiis di wax ni amaat na ñaari doomam yoo xam ne génn nañu àddina benn bi moom mu ngi toll ci juróom fukki at ak ñett mu ngi dëkkoon fee ca Grand génn àdduna démb di altine di fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 bi nga xamante ne 20 heures mooy 8 heures ci ngoon jot na fële ca centre de santé Nabil Choucair ca côté Patte d'Oie keneen ki tamit moom mu ngi am juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn mu ngi dëkk fii ci dakaar làkku na bi nga xamante ne mooy bésu fukki fan ak juróom-benn ci mois de mai moom nag ci li ñuy wax structure privée fa la làkkoo fa la génnee àdduna ñoom ñëpp bi ñu leen seetee gis na ne dañu àndoon ak doomu jàngoro ji ñu wax Covid 19. ministère de la santé et de sociale mu ngi jaar seeni mbokk mu ngi jaar askan wi di ñaan ñoom ñaar ñëpp yal na leen yàlla xare àjjana. di dooleet itam di fàttali di ñaax askan wi ne leen bu ñu tàggoog digte yi nga xamante ne jox nañ leen ko ngir mbas mi mun a génn ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaam. ah ñu daal di desandi ba tey ci wàllu Covid 19 bi mbas mi ak fanweeri yi nga xam ne nag faatu nañu nee ñu ñaar fukk ak juróom yi yëpp ay nit ñu sori lañu ci wàllu nag at ba tax 85 pour cent sax la ñu daal di xayma ah, mag ñi daldi di nag faatu ci feebar bi virus bi nag nee ñu ci góor ñi lay gën di alawtiku jigéen ñi ah, fii ci Sénégal sax firnde la ci ayu bés nag laata ah, feebar bi di feeñ ci yaramu nit ki bu dee nag ñi nga xam ne ay nit ñu âgé lañu dafay am daal. amal ay li leen di digtal ci wàllu nag xel daal leen xërtal waaye itam dinay am léeg-léeg ci wàllu eh, biir buy daw ak signe yu bari yu ngay xam ne dafay daal di nag am yooyee nag mooy daal di làq feebar bi laata muy fës professeur Mamadou Koumé di ci def ay dénkaane ñu déglu ko ak Adja Ndeye Khady Diop waaw ci li leen di daal ci seen bopp fi ñu toll nii boo ci lim bi ñu am léegi euh, ci ci ci li wër réew mi daanaka ci feebar bi téeméer boo jël fukk yi ay mag lañu waaye boo ci hôpitaux yi la mag yi gën a sonné parce que foofu cas yu grave yi ak cas yu métti yi ci hôpitaux yi la ñu koy yóbbu te bu ñu xoolee ndette bi li muy faat euh, fanweer yi ñu jot am presque ñaar ay mag lañu donc mën naa wax ne que presque boo jël suñ koy xayma juróom-ñett fukk yi ak lu topp ay ay mag lañu donc feebar ñi la ñu gën a faat te loolu aussi dafa méngóog li ñuy gis sur le plan international sur le plan international feebar bi buy ci réew bu dee téeméer ñaar yi ak genn wàll lay faat ci population générale bi bu ñu demee ci mag am juróom-ñaar fukki at juróom-ñett lay faat ci téeméer bu ne ñu demee ba am ci mag ñi xam ne am nañ juróom-ñetti fukki at ak lu topp fukki ak juróom la ñu faat ci téeméer bu nekk donc ngeen xam ne feebar bi mag ñi la gën a faat donte ne seen mortalité bi yokk na dañuy dafa wër dafay firnde que ne vraiment feebaru mag ñi la. jigéen ak góor ci mag kan lay gën a faat la. a ci jigéen ñi parce que suñu statistique góor ñi lay gën a laal te góor ñi lay gën a faat. loolu aussi dafa yàgg parce que gu mag moom ki buy ñëw mag jigéen ñi gën a dëgër góor ñi ñoom ñoo bokk ay mandarga ak ñi nga xamante ne seen i at magagul noonu bokk nañu ay mandarga mais ñoom dañu am loo xam ne dañ koy fësal tax ndaw yi duñ ko fësal lu jut feebar bi feeñ une semaine avant une semaine avant mag ñi dafa am loo xam ne dañ koy manifester dañuy gëlëm gëlëm toog xamuloo foo nekk di wax yu wax yu kenn xamul wala ngay jóg di daanu te kenn bamaxu la wala biir bi daw ñett mandargo yi bu fu ñu ko gisee ci mag nañ def attention xamal ne corona mën a dugg ci moom ñu test ko gaaw diabète ak hypertension moom xam ne bu fekkee ne ñëw na feebar bu ñëw na fekk diabète bi équilibré wul bi stable feebar bi du baax ci yow Euh, ñu dem Grand Yoff foofu yi nga xam ne jamono jile daanaka du euh, jamono daal di wàcce seen i loxo ci xeexu Covid 19 bi ndax nag cas yu communautaire yi ñuy faral di nemmeeku askan wa di gën di jël seen i nag euh, matuwaay ngir daal di nag gën a aaru la ñu daal di nag xam ne mooy yi ci bari daal médias yi ñoo leen di daal di nag informé ci cas bu ñu testé mu daal di nag positif ci quartier yooyu la Fatoumata ci Grand Yoff jamono ji nag askan wi ñu ngay jël bépp Mass Milé Ansoumana Diatta moom ab étudiant la. Grand Yoff dafay rëy. noo xam ci man côté ci Grand Yoff la man maa dëkk fii monument Grand Yoff laa nekk. mais souvent dañuy woo grave mais ñun waa monument ñuy def suñu activités yi ñuy raas suñu loxo ñu teg suñu masque chaque jour ñu protéger waa ennemi boo xam ne kenn mënu ko gis. mu yokk ci ne dafay jàngale ay cours particulier loolu la waral sax muy takk maskam saa su nekk ndax xale yi muy jàngal dañoo exposé wu conoo ne sax day ñaax ñi nga xam ni mooy mag yi mu dëkkal. dañ jël suñu motuwaatam toog suñu kër ñu sensibiliser suñu mag yi suñu rakk yi ak suñu frères yi. kon loolu rek moo ñu mën a tax pour ñu vaincre maladie bi. ñu fekk ko nag ci benn kiosque PMU Pape Sakho mu ngi xamal ne nag moom ci rajo yeeg télé yi la yëgee ni commune Grand Yoff am na ay cas communautaire waaye donte loolu sax moom yëg na ko waaye mi ngi jël ay matukaay ngir mucc ci mbas mi. dañu digg la ñuy def ah? parce que fu mu toll nii dañuy dëgg rek ni na cas communautaire mais man mosuma gis mosuma damay dëgg rek nit ñi di ko wax waaw mais mosuma si tombé daal. askan wi yeewoon nag fi ci Grand Yoff jamono ji tiit ak njàkkare lañu ñu amee ci li xam ne ni moo di cas communautaire yi kilifa yi nag yor wàllu gox goxaat yi ñoom nag teg nañ ay jéego maanaam ay gel hydroalcoolique ak ay masque ñu daal di nag ñëw ci patients yi nga xam ne nag daal di nañu rek faatu ci coronavirus bi ñu gis ne nag euh, kiy amee juróom-ñaar fukki at ak euh, ñett mu ngi dëkk ca commune bu Grand Yoff boobu ab localité boo xam ne euh, dafa daal di bari jamono ji ay cas communautaire autorités locales yi boobu ba léegi itam bi mu ma feebar bi fëse ñu daal di teg yenn ci ay matuwaay ñu jàpp ne buñ ko jëfee ak équipement yëf yi dina mën rek dertu gannaaw teewul nag ba jamono ji gis nañ ne yëf yaa ngi gën di. yokku rawatina ci ñii di waa troisième âge kii di Bassirou Samba nekk chef cabinet maire bu Grand Yoff ñu déglu ko ak Adja Ndeye Marème Ndiaye. am ñeenti poste de santé ak benn centre de santé ñoom ñëpp ñu jàppale leen ci ay matériels yoo xam dina leen permettre ñu xeex ak jàngoro matériel boobu chaque fukki fan ak juróom dañuy ñëw dajeeg ñoom yokkaat ko évaluer ko biñ ci jógee aussi dem nañ ci daara yi jàppale leen marché yi ñu désinfecté fa yóbbu fa matériel Euh, dem nañ aussi au niveau des bâtiments publics yi nekk ci commune bi yëpp bu ci nañu yóbbu fa matériel jàppal jàppal jàppale jël lu téeméeri ndaw ak juróom fukk former leen ñu def sensibilisation affiché ci dëkk bi waaye def ay caravanes yoo xam ne day wër dëkk bi chaque fois di sensibiliser nit ñi ànd ci ak bàjjenu gox yi relais communautaire yi pour que ñu xam ne feebar bi kat fenn rek lañ mën a intervenir mooy ci wàllum Euh, prévention bi parce que olof dafay wax ni fagaru mu kat moo gën faju léegi nag euh, li jublu ci wàllu xeex boobu ndax mu mun leen tàmbali nag léegi di ko euh, jagleel ñi nga xam ne nag nañuy tuddee les personnes du troisième âge ndaxte boo seetee ñoom de la feebar bi gën a sonal waaw xam nga feebar bi nag plus muy avancé ngay gën a xoolaat sa taxawaay di ko gën a defar te li ñu remarqué mooy mag ñi la ëpp lu muy dal te damay faral di wax ni mag ñi en général du ñu génn seen kër ga rek la ñuy toog ndaw ñi ñooy dem dafi am feebar bi indi ko ci kër gi. loolu waral ñoo ngi xool ak euh, démb gis nañ délégué de quartier war a xool ak imam ak bàjjenu gox yi ñoom ñi nga xam ne ñoo féete mag ban taxawaay la ñu mën a def avec personne de santé bi pour fexe ba sunu mag ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi ñu mën leen a gën a jàppale feebar bi ñu mucc ci mais ba ma ko mayee aussi may ñaan district sanitaire yi nga xam ne ñooy liggéey commune dina baax tey waruñu toog rek di xëy di dégg Grand Yoff am na kaateel am na kaateel ci rajo bi mais ñoom war nañu mën a communiquer ñun en tant que autorité décentralisée ñu mën a xam suñu ay cas fan la ak ban secteur la pour ñu mën fa orienter suñu ay suñu ay action parce que loolu ba fi ñu toll jërë jafe na trop ci municipalité bi mu wax ni quartier tel ak quartier tel fa la jàngoro jam parce que ko war a communiquer communiquer wuñ ñu ko Euh, situation mbas mi ca Ziguinchor eh, nee na mu ngi sous contrôle maanaam daal dinay am ak dal ca Ziguinchor googu gouverneur bu région ba moo ko daal di xamle ndax nag ca fukk ak juróom-ñetti cas yi ñu daal di am nañu fukk ak juróom yi daal nañuy wër benn décès la ñu daal di am ko faatu ak yeneen ñaar yoo xam ne jamono ji ñu ngi nekk sous traitement euh, moom euh, gouverneur bu région bi di daal di dalal xel yi ci lañuy ñuy daal di baral lu aju ci wàllu séddale aide alimentaire bi Géej Diouf mooy gouverneur bu Ziguinchor ñu déglu ko ak Ignace Ndeye situation bi de mën nañu wax ne euh, moo ngi sous contrôle ñoo ngi sant yàlla ndax bi mbas mi commencé ba léegi fukki nit ak juróom-ñett ñoo ko am ci région bi moo ñoo am feebar bi ci fukki nit ak juróom-ñett yooyu fukki nit ak juróom yi faj nañ leen bi ñibbi nañ seen kër yàlla dogal ñu am ku ci faatu ñaari ñi des ñoo ngi leen di faj ci centre de traitement bi nekk hôpital régional ci ñoo ngi sant yàlla bu baax seen seen wér-gu-yaram moo ngi tànne bu baax a baax dundu ceeb bi euh, processus la moo ngi continuer di di ko gere distribution bi commencé na déjà ci commune bu Toubacca Maracounda yeneen article yi léegi mu mot ci département Ziguinchor yeneen yi mot na déjà ci commune ci ci département Oussouye tey yónnee nañ ay camion ci département euh, Bignona pour compléter li desoon ci article yi li ci des mooy baral distribution bi ndax commencé na déjà mais baral ko moo des pour que nit ñi mën a jot euh, définitivement ci ceeb bi ak euh, yeneen articles yi ci bopp. lan mooy situation feebar bi ci région bi. Ah, ñu daal di dikk ak téeméer ak ñaar fukk ci rajo communautaire yi daal di dankaloo ci ginnaaw URAC ñoom nag dañoo fas yéene dugal seen loxo ci xeex Covid 19 bi slogan ba ñu jël sax mooy ah, tontu communautaire bi nga xam ne war nañ ko mën a indi ci cas transmission communautaire yi ñu daal di nag nemmeeku union bi ëmb rajo yi nga xam ne nag ñoo daal di yëngu ci wàllu rajo communautaire ñoom nag dañoo bëgg rëddab stratégie boo xam ne moom la ñuy daal di doxalee bokk na ci def ab mémorandum ko autorités yi waaye itam ji jëfee kàllaama yi nga xam ne nag moom la ñu di eh, langue locale yi wi eh, ko bi ci des mooy relais communautaire yi ñuy faral rek di jokkoo ak ñoom kii di président bu URAC di Talla Dieng indi na ci leeral ak Mame Diarra Da Silva. xam nga ñun ginnaaw dañu nekk ay rajo communautaire yi nga xam ne. ñu ngi tasaaroo bépp ci biir Sénégal. to feebar bi am. la nga xam ne def ko indi muy lu ci wàllu walante ñuy wax transmission communautaire ñu nekkoon transmission communautaire il faut une réponse communautaire et puisque nous sommes au cœur des communautés bi lakk kalaama réew mi nekk fépp moo tax Irak daal di ne il faut ñu xalaat ci benn document stratégie de lutte contre la transmission communautaire li am solo ci document boobu mooy il faut que ñun ñu liggéey ak secteur yépp ce qu'on appelle l'approche multisecteur au niveau communautaire pour ñu mën a faire transmission communautaire boobu mais aussi def lép lu ñu war def ci su su communication ñu bañ a gën a tiital doomu aadama yi mais aussi ñu jëlloo leen ay responsabilité ci wàllu mbas mi ak yeneen points yi nga xam ne mu ci document bi mais li ci am solo mooy ginnaaw document la te forcément dina am tous scientifique maanaam ci wàllu war docteur du suñu wàll bugguñu rek déroulé document bi noonu tant que partage ñu ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am mandat sanitaire dañ dañ leen koy jox dañ dañ appelé service de ministère ñu jox ko kañ ko war a jox ñoom ñu am jotul ñaari fan ñetti ñetti fan càmbaraat document bi ñu tas ak ak ñoom ñeg léegi ñu jàpp li nga xam ne moom la ñu war a jàpp bu fekkee ne ci biir document bi am nañ ci yeneen gis-gis ñun ñu toog ak ñoom gis-gis yooyu ñu mën koo intégré kon document bi c'est pas un document figé c'est une proposition ah ñu daal di nag euh, dikk ci euh, mbir mi nga xam ne nag euh, mooy contrat bu Akilee ak Senelec motion soutien bi nga xam ne defar nañ ko Akilee moomu daanaka tax na club bi nga xam ne mooy club investisseurs yi ña ko daal di séq ab xaajaloo daal di di am ci seeni nag biir ndax nañu ko daal di nag defee directeur exécutif bi la ñuy jàpp nag moom moo daal di nekk ci bopp mbir ma ay démission gu démission gu ay ñi ñuy duppee homme d'affaires waaye itam club bi nga xam ne nag mooy investisseurs yooyu ñi mu daal di nag xaajaloo jamono ji ak situation difficile ba mu daal di nag tax ñu daal di koy fësal après nag communiqué ba conseil administration bu siis googu jamono ji mu ngay daal di def lu ne bu ko defee motion de soutien boobu ñu daal koy teg ci suuf Babacar Samb. mu di démission wala xalap ak nga xamante daanaka mu ngi tegu ci ndoddam kuréel gi di club des investisseurs du Sénégal jamono ji mu ngi ci guddi gu bët setagul ba nga xamante ni daal dinay bi ci jàmmaarloo ba nga xamante ni dox na ci digganteem ak Senelec Senelec googule dem bay ngàññ doxalinub CIS syndicat ñuy liggéey ci wàllum électricité ñu gën koo xam ci Sutelec ñoom itam daal di dugg ci coow wile waaye di tuumal CIS ak itam Akilee ne liñ bëgg a def jamono ji moo di daal aw hold-up Abdourahmane Ndiaye moom gisul lu dul tekki ndombal tànkam ci kuréel googule di club des investisseurs moom mi nga xamante ni moo di patron bu Sagam moom itam communication bile homme d'affaires di xalab doxalin ba nga xamante ni nee na daal daal di koy nemmeeku ci club des investisseurs gannaaw ba nga xamante ni daal di nay jël dogal ngir jàppale Akilee Texi di xamle ni àndu ci benn yoon directeur executif bu CIS jamono ji coow daal di koy topp. Abdourahmane Diouf ñu koy tuumal ne deful lu dul wane ni moom mooy buur di bum yi foofee ca CIS gannaaw ba nga xamante ni daal di nañuy fësal communiqué bile ndaxte nee nañu daal membre yu conseil d'administration bile yëguñu te tinuñu mu di ay tuuma yu tegul fen bu ñu sukkandikoo ci directeur exécutif bu CIS di Abdourahmane Diouf ngir dakkal coow wi lay conseil d'administration bi daal di jël dogal génn beneenu pa bataaxal ni ki démb ci altine ji ngir ni jàppale société bi di Akilee di fàttali ne CIS di club des investisseurs du Sénégal ak kuréel la ba nga xamante ni lu ëpp juróom-ñetti fukki homme d'affaires daanaka ñoo nekk ci biir ñu daal di koy créer ni ñaari fan ci weeru juin atum 2018 li ko tax a moo di xamante moo di këru liggéeyukaay yi fii ci réewum Sénégal taxaw itam ci création d'emploi ba tax na aw société d'investissement fas yéene nañ koo taxawal te capital bi war toll ci 20 milliards francs fa Sud FM ganu bés bi. Euh, ñu daal di dikk ganu gës bi kii di Gora Khouma lay doon ak lu aji ci wàllu ubbi transport interurbain bi njiital union routière yu Sénégal. ñu ngi koy sàkku ñu déglu waxtaanam ak El euh, Hadj Malick Ndiaye. ak Gora ma euh, Gora ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yow nag yaa jiite syndicat bi di union des routiers du Sénégal bokk ci CNTS. alors Gora fi mu toll nii gis nañu dans région Sénégal yépp seen bëgg-bëgg moom mooy ñu fexe dem beeg dikk bi interrégion daal di am naka nga jàngati revendication boobu. waaw revendication boobu lu noble la te lu war a mën a nekk la. maa ngi koy yuuxu sama morom a ngi koy yuuxu. parce que euh, Covid 19 dafa impacté ñëpp. mais parce que il faut que sénégalais xam ne Dakar mooy seede le transport urbain mais treize régions ci des yëpp ci région bi loolu la ñuy wax la licence rouge moo yore transport interurbain la licence jaune moom mooy transport Dakar mooy bu mooy transport Dakar mais treize régions nga boole ko buy dox ñëpp bokk ci Sénégal dafa métti moo tax demande bi wax man koy wax keneen ne ko wax ñun li ñu bëgg mooy. nañu bàyyi oto yi liggéey moo demande fu mën di doon parce que catastrophe am na ci ñun coono am na ci ñun vraiment métti na te xamut lu ñu def te boromi cër lañu looloo waral dë benn bëgg-bëgg benn rek la na président corrigé lii ndax li nga xam ne ñu bëgg mu corrigé ko mooy gis nañu ne moom wax na ne feebar bi ay la yëwoon xamaguñ kañ lay jeexoon il faut que ñun ñëpp ñu xam ne dañoo war dëkk ak moom comme dañoo war dëkk ak moom nag di xeex moom nañ bàyyi tamit transport bi dëkk ak moom di xeex ak moom mais buñ bàyyi ñëpp di liggéey ñu dinañu dinañ am beneen feebar bokkul ak euh, euh, covid 19 bi wax na ne ah jàkka yi léegi lii di culte sax laay wax du jàkka kese jumaa yi jàkka yi éligé ubbi nañ ko marché ubbi nañ ko ah bëgg nañ aussi enseignants yi jóge fa kenn ku nekk dellu sa classe ba nga doon jàngale classe de nañ aussi baykat yi dinañ seen i tool ah bëgg nañu lu may ubbeeku mais yooyu yëpp transport koy def te ñun vraiment ku wax yàlla xam ne moom ci président sax war naa xam ne ñun ñun ci musoo bu rëy rëy rëy ndax nit ki la nga doon dundee bu ko doon liggéey ba weer wi dee boo mutu sax sa dépense mat tey ñu téye la yoo xam ne yoroo dara sa jaw yor dara la te ñu tamit ay citoyen sénégalais lañu bi lañu dund ci feebar bi ndax yéen xayma ngeen li nga xam moom mooy impact bi arrêt transport interurbain bi daal di am ci yéen loolu loolu évaluation globale bi mënaguñ kaa def ndax kenn ku ne da ngaa sori sa morom mais bu demoon ba tey jii lé mais lefi am si ñun ba kenn ku nekk jigéen sa man natt nga yow li nga doon am bu ñu defee bu ñu paree dañu def mën a def benn évaluation globale te bu ko rogee bu ñu koy Sénégal bi dina xam ne ñun dañoo dee parce que enveloppe la boo xam ne bi tey jii buñ ko doon remboursé ay milliards lay doon kon mooy wane la wax naa léegi ne la nit li muy liggéey par li muy liggéey par weer mënulu ko dara ak coono la ci am nga bu kàccee trois mois ne ko doo ko def loolu musiba la te dund bi ñuy wax cas yi ñu wax jotuwuñu dara même buñ ko jotoon sax amul ñu benn njariñ yéene la ci benn njariñ ñun daal li ñu bëgg président wax ko te def ko na bàyyi transport interurbain bi mu circuler dans toutes les régions kenn ku nekk am nga sañ-sañ jiw ci région bi dem ci beneen région loolu mooy mën a régler suñu problème taxul sax suñu problème rek la parce que kenn ku ne xam ne transport bi avant que heure bi ñu sax dañoo am problème rawatina ba ñu bloqué. waaw ndax yéen noppi ngeen ngir mesure su. amee rek ngeen mën a daw seen oto yi ci wàllu mesure barrière rek ci wàllu cet gi ndax yéen noppi ngeen ci côté boobu parce nañ ci bu baax a baax a baax parce que ay sénégalais lañ avant tout ay citoyen lañu te ñii yëpp ñu am jàmm ñu bëgg nañ jàmm bëgg nañ yëpp jàmm ndax mesure barrière yi ministère de la santé directive yi yoo dafa leer nañ même bi oto yi taxawee tamit kenn ku nekk yaa ngi ko utiliser ndax te jàmm yaram kon bu fekkoon ne ñu def marché yi teg fa ay mesure de te ñun ñi dawal oto yi bëgguñoo feebar te bëgguñoo yem ko feebar ñun dinañ ko utiliser dama ne loolu daal du du du du obstacle ñun dinañ ko respecté à la lettre parce que tamit loolu dara néew ñu sëbëru duñ ko am comme sëbër yi nag dañ koy am kon ñun danañ mais daal li ñu tëwoon mooy nañ xam ne ci jur gi euh, mbaam si gàtt na ci jur gi la bokk nañu bàyyi ñu liggéey nañu bàyyi ñu liggéey nañu bàyyi ñu liggéey ñu ànd virus ñu ñëpp bi ñu xeexee ko noonu dañ bàyyi ñu liggéey liggéey nag bu amulee nag leneen dinañu dal lu bokk na ko dinañ boole covid 19 bi boole xiif ak mer ak sonn ak i bor te loolu amul benn njëriñ moo tax ñuy ñaanal président de la république moom mi yàlla dégg kaddu na xam ne transport ak njabootam la ñu te ñu ci souffrance transport urbain bi am souffrance trans interurbain am na souffrance camions yi am nañ souffrance nga jël njabootu transport yëpp jéem a utal solution boo xam ne bi dañ xam ne kat kii moo suñu président ñun loolu lañ koy ñaan mais du loo xam ne li daf ñu rey nañ ñu dundal moo mu rey ñu. góor sant di la gërëm bu baax a baax. di fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat de l'union des routiers du Sénégal affilié ci alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ak ndox ak saabu ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci yi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. l'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen di may wax sa xalaat. Ah, ñu daal di koy door wax sa xalaat bi ak eh, lu aju ci eh, sàkkuteef boobu transporteurs di dal def situation. bés bi nii waaleykum salaam wa. Sooro Baye Fall Kër Seck di wootee Diourbel. waaw ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay di ñaan ci ñoom ndax dafa yàgg si wér. Mhm. di wax ni oustaz Adama eh, coono bi moom yaatu na ko du chauffeur yi rek ñoo sonn <laughs> te it feebar bi moom jafe-jafe yi ma àndal ku ne xam na ko du du Sénégal rek la la jafe-jafe yi yem wala fi la am feebar bi mooy li nga xam ne moo tàbbi ci àdduna bi lëmbee ko loolu moom képp war nañ cee d'accord te dañu xam ne mesures yi nga xam ne moom la docteur yi di joxe pour aar doomu aadama yi kenn ku ci ne nga mucc loolu rek lañ ci jublu mais du leneen loolu il faut nit ñi xam ko ñu respecté mesures yooyu nga xam ni digle yooyu ñu leen di jox nañ ko respecté nañ ko respecté defal nangam ngir nga mucc ñu la ko waxee yaakaar naa coow war ko jub te it ñëpp ci loolu la ñu war a ànd ci sensibiliser ci doomu aadama yi yaakaar naa bu ñu ko defee rek léegi jàmm am kenn ku ñu ne dem joxe si soxla ndax sofóor yi sonn nañu Euh, euh, sama classe bii nga xam ne ambulant lañu sonn lañu parce que mar marque luuma yi lañu amoon te tijji bi daanaka demeegul loolu ndax euh, tijji luuma yi dafa ànd ak tijji may autorisation oto yi ñu mën a daw loolu lépp dafa ànd kon fekk loolu amul itam lu tax nit ñu am liberté te lépp feebar bee ko waral kon nañ ñaam feebar bi jeex ak jàmm président jàmbaar la premier ministre ni ko toppal il faut ñu wax leen gàcce nga laa mën a parce que président dafa jël 5 milliards teg ci loxol transporteurs yi nañu fexe loolu yegg ci chauffeurs Euh, xaalis yi ñu denc ci garage yi nañ ko génne dis bu dolli ko ci xaalis boobu man tee safoor si mën tee gis seen bopp parce que kore gi ñëw na ba pare kore gi ñëw na ba pare oustaz Adama euh, président regroupement garage yi xaalis yi nga xamante ni moom la ñu denc ci seen kees yi nañ ko génne boole ko cinq milliards yi safoor yi mën tee gis seen bopp waaw te ñu àndandoo mobiliser ci ginnaaw président yaakaar naa ni lépp dina sotti parce que président ci loolu la nekk de ci livre doomu aadama nekk ci jële jàngoro ji ci lay xeex moo ko ministre waaw te ñu ngi koy xeex si bu fi nag waaw. ah, ah di jàngatam ñu xaar keneen soose ñu jël ko ci ligne bi allo. allo. allo waaw. ah nag rafet yaa ngi jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. maanaam bu ma la nuyoo siyaar la. Mhm. siyaare bu baax sama ñetti station di bu ko fan ak wér Adama li ma leen di dénk mooy ñu ànd ko dal rek. comme mm. noonu ko góor Baye Fall waxee. comme ñoom seen garage bi am nañ ay kees ay millions nga fa tëdd. xaalis boobu kañ lañ ko jëmee mais nañ ko génnee bu jafe-jafe amee dañ koy génnee di ko di ko def ay dépenses seen biir te xam ne yàgg yàgg daañu ñu a génn leen may ñu dem parce que ñooñu ñu toog jàpp benn lundi ba vendredi ku bëgg a dem ñu ne kaar yaa ngoog dugg leen ci ngeen dem donte Dakar yi ko mën a def rek gouvernement bi dana ko jël fay leen wala mu jël Dakar yi mu ñu wàccee leen Tambacounda Kaffrine ba fu waay waay war a wàcc ba si ngeen soor ñu jëm Touba loolu moom daañu def bis na xam ne daañu jàpp balaa bis bay dellusi nag ñu arrêté ñu war a dem ñëpp génn bu ñu ko tàmbalee lundi balaa àjjuma ku war a génn da génn ñu joxe dat nag ku bëgg a dem na nga dem ku ku fi nekkaat parce que bis tàngam tàngal bàyyi nañ leen ñu faxandoo benn yoon tasaaroo ci àll bi kon li ñuy réglé dara du ci mën a réglé bàyyi bi ñu yolomal bi ñu yolomal bu ñu ci boole transport kay kan loolu moo ñu bàyyi lépp il faut parce que mbir booy dëkk ak moom da nga koy préparer waajal ko sa sensibiliser nit ñi ba kenn ku ne xam ne war a nekk jàngoro ji ba mu dugg sa bopp nga war koo mën a xam mais bu ñu leen bàyyi noonu dañu def pëccaxoo daajaloo ci gaar looloo nga ci xelam ci dana ci xalaat ci dana xool lu mu lu ci ne ak li ñu leen boole ko mën cee jàpp bu ñu jàll da ngeen liggéey ma dem dañoo bëgg Sénégal yëpp am jàmm ba pare wér rek loolu dong lañ indi waaye du kenn kuñ ci kontar bu ñu sañoon yéen ñëpp safoor sépp kenn ku ne am jàmm am xéewalam lu yóbbu sa kër waaye continuer di liggéey jëlee ci jàngoro yóbbu ko sa kër yaakaar naa loolu mënut a nekk lu dul gën kon na ngeen waajal seen bopp bu ñu leen ni óob xam nu ngeen defee seen i matuwaay yor yu mag ku dugg ndox sax nga am ko bu ñu mën a raxas ok euh, ñu xaar keneen euh, Socé ñu jël ko ci ligne bi 88 allo. allo allo waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, waaleykum salaam. Oustaz Adama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Géejawaay Sam ñu ngi lay nuyu ak waa Géejawaay. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo baax Oustaz. Mhm. man dama bëggoon wax rek ci mbiru euh, maanaam mesures yi nga xam ne président jël na ko. Mhm. te nga xam ne bi mu defee conférence de presse ba léegi. Mhm. Euh, dañoo xawut a gis nag avancement bu ci am. ñuy soññ ñi nga xam ne ñoom la engagé. ndax tey yaakaar naa ne jëloon na mesure ne ñu war a yi war nañ leen programme pour ñu dem. loolu ñu ngi ciy sàkku ay leeral ak fan la ñuy mën a defee seen demande autorisation pour mën a dem ak tamit nii ñu di arrêté oto yi ñoom maanaam dañuy bokkoo oto waa wàllu particulier ba xam dañuy demander autorisation par quatre personnes wala déet wala dañ leen di mettre quarantaine beneen bi ci toppaat aussi lu jëm ci mbiru daara yi daara yi dafa am daara yoo xam ne ñoom dañoo organiser wu def ay association ñu nga xam ne wàllu koom dañ ciy joué lu bëree bëri am ñu nga xam ne tey ñoom ñu ngi toog seen i si jaada ak seen i daar ak seen i alawa di jàngal seen i njaboot te nga xam ne ñoom xooluñ dara dara loo xam ne luy luy lu ñuy dawale ci intérêt la ñooñu ñu ngi loru ñooñu bëgg naa ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax lu jëmaat ci mbiru euh, wàllu garab googu nga xam ne tey moo jógee euh, fële nga xam ne mooy Madagascar dama ciy insisté nañ ci leeral nit ñi bu dee garab la goo xam ne dañu war a jox askan wi ñu leeral ko jox ko askan wi troisièmement nañu gën a respecté mesures barrières yi parce que nag bu leen fàtte ne ñun communauté bi ñoo waroon jooy ne dañoo war a ubbi jàkk yi dañoo war a ubbi marché yi dañoo war a kii kon xeex bi su nekk nii nekkatul xeexu état état li war a def yëpp def na ko xeexu communautaire bi la beneen bi ci toppaat mooy mbirum dund bi nañ ci jéem a def paxe loolu nag gàllankoor bi ci opposants yi laay reproché parce que ñoom ci seen jëm bopp ñoo doon reproché état ba état jox ko armée bi armée bi tey yaakaar naa ñoom di ni ñuy saytoo ak ni muy demee tax na ba xam ne gàllankoor yi xaw na yéex lool bagage yaa ngi ci magasin mais ak seen jotaguñu ci nañu soññi bu baax ñi nga xam ne ñoo yor commission bi ñu fexe jox nit ñi li nga xam ne tey mooy dund bi ñu mën koo dundee dem ruuji tool yi bay tool yi ñi nga xam ne tey dañoo am lu ñuy. Ah, ah, kon euh, Socé ñu jël keneen ci ligne bi allo allo salaamaaleykum allo. waaw dafa mel ni déggante bi jàppandewul donte mu ngi woon ci ligne bi bu fekkee mu ngi ñuy dégg mën na rek dugg joxe xalaatam 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. Euh, Oustaz Adama na ngeen def fay. waa ñu ngi fi. Euh, man la mu de Diop Mbos. ñu ngi lay nuyu Diop. Oustaz maa ngi lay nuyu euh, di nuyu sa technicien bi nga àndal soose maa ngi koy nuyu bu baax. Hmm. waaye tamit di nuyu képp koo xamante ne si jamono ji yaa ngi teewlu di déglu si FM. di kontaan ci liggéey bi ngeen di def am na solo. di wax ni nag li nga xamante ne si moo xew ci àddina bi yëpp muy feebar bi yàlla na ko yàlla jeexal mu jeex tàkk ñu dem ba fàtte ko kenn nekk dellu ci ay itteem yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye tamit euh, euh, président wax dëgg yàlla wax naa ko ci ay bis bii sax euh, waxoon nañ fi ba nga tijji jàkk ak jumaa yi kenn ku ci nekk dellu julli ji wax dëgg yàlla lu am solo la waaye tamit secteur transport bi ñoom it wax dëgg yàlla ku leen gën a sérieux amul parce que tey bu ma déggee sax kuy wax naan ñoom dey nañu teey nañu nàngam dama lay mere parce que li tax mooy gouvernement bi loi bi mu teg lépp lu mu ci wax rek sénégalais yi nañ loolu te xam ne sénégalais yi wax dëgg yàlla xeex bi ñoom ñëpp donte gouvernement bi mu ngi koy xeex waaye tamit askan wi xeex nañ ko parce que neel toog leen seen kër toog nañ fa transport bi ñu ne leen du ngeen daw dawuñu diirub lu tolloog ñaari weer ñu toog seen kër yoruñu benn dërëm dama ni boole ko li nga xamante ne si moom la nguur gi diggee woon joxu leen ko dama ni looloo ñu ngi koy soññee président fexe la taxawu ci loolu fexe ñu jot ci parce que àll bi jamono jii ñuy wax nii transport bi yàlla xam na ni wax naa ko ci ay bis bii soo ñëwee ba gis leen da nga leen di yërëm wallaahi lazim département bi yëpp ñoom ñëpp a sonn yoruñu benn dërëm surtout ñi nga xamante ne si mooy chauffeur ji dëkk si àll bi euh, surtout que chauffeur yi moom dama leen a jëlale kon tey président taxawaatal saw askan di leen déglu parce que ni nga leen dégloo ci jàkkeeg jumaa yi bi ñu ko waxee ci ay bis bi nga fexe ba digguwaat ko dama ni waaw ah, euh, mu nga ko euh, matal na ñaari ñu jëlaat keneen soose allo ah, allo oui bi sëñ bi salaamaaleykum waaleykum salaam waaw man la Aliou Guèye Grand Dakar. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a waaw waaw eh, waa ji lu mu wax ci affaire transport bi moom la ñu àndal de. Hmm. moom la ñu àndal fekk affaire bi moom métti na trop trop trop saa yi pour dëkk si fii. Hmm. te boo waxee saa ah, ñu am oto ñu am am affaire trans ñu ñu am kii kayit bi bu pare saa yi ñeneen yi duñu am da dangay dangay boobaa saa yi dañuy séparé ba jox kenn sax moo gën. Hmm. ba jox kenn moo gën. ndaw su boobaa nag nañ yemale ñëpp saa boo seetloo ndaw su boobaa néew doole la ñu gën a kii quoi waaw loolu laa amoon jërëjëf. bu ñu ko waxtu yu mayee ñu daal di jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 allo. allo maa ngi lay dégg sëñ bi. waaw waa maa ngi fii maa ngi lay ba Oustaz di ba Seck Mbaye laay. Mhm. Oustaz. waaw. Oustaz yaa ngi dégg. maa ngi lay dégg bu baax a baax. waa ñun Oustaz xam nga li xam nga dafa mooy. Mhm. ñun daal amaguñu ab république moom ko. Mhm. république moom te transporteur yi jàngoro ji oto yi fu mu fu mu dem ñëpp yóbbu oto yi ñoo jël jàngoro ji yóbbu ko fu oto yi bu ñu waxee nañ toog ak de saaxeelu ñoom ñu ngi sonn ñoom la ñëpp sonne Sénégal bu fekkente nag élèves yi ak enseignants yi ñu bëgg def ay wujju soo gisee ñu yóbbu élèves ak enseignants yi mais cas de force majeure la hmm. cas on est obligé yóbbu yóbbu enseignants yi ak élèves yi pour sauver année bi pour sauver xale yi ñoom nañu wax ak assurance assurance bi ñu assuré seen oto yaa ngi nii toog deux mois dawul nañu wax ak waa assurance te teg seen kees yooyu ñu béy alal dafa jëlee gàcce lañ faj wa salaam. Euh, kon fii la ñuy yem ak yéen ñu daal di nag jébbal bi la xibaar ba noppi mooy rek euh, président bu cour suprême bu bees bi Cheikh Tidiane Koulibaly lay wuyoo moom moo daal di wutu kii di euh, Mamadou Badio Camara mi ngi xam ne nag dafa daal di jël retraite am kii di Cheikh Tidiane Koulibaly nag nekkoon ba jamono jile procureur général foofu ca cour suprême jaajëfal Alioune Badara Socé 18 ak Adja sa Iliman Wane jaajëfal ñi woote jéggalu ci nekkoon ci liit bi ba cug bi ak jàmm fan ak wér-wér la am ak mën a fekk ak tal yàlla ko yàlla defal jërë ngeen jëf